ñëw tuubaa waa mu ngi tudd maam Thierno du ma fàtte turam ndax waa kër Thierno laa bokk ñuy addi ci Serigne Touba ba waa ji aalu ne yéen daal yëfi Serigne Touba ngeen nekkoon daal dugg ci oto bi génnee nataal bi ne lii si Mountakha ma ko jox léegi-léegi barkeelu man lay liggéeyloo ci ndoxum Touba bi keroog dañu am fierté am mbégte am contentement may wax Cheikh Tidiane Dièye la ministre bul fàtte ki ngay waxal moo la ëpp bopp du benn paa nii rek papay bu toog ngay wax ak moom yow benn émo yi nga manam euh, memorandum d'entente kese nga signé gum légui ci biir wax ci dégg naa ñu né ki euh, Sino Hydro mhm. ak euh, li ñu wax ni ko waxee China Power mhm. ñom ñoy def ñoy ñoy def étude mhm. kon xaalisu étude bi wàcc na Sénégal mais bu défé étude ba paré 6 mois boobu nga xamante la plupart MOU bi mom lay durer buñ ko défé ba paré ñu né légui ñom amuñu xaalis bi koy financer kan moy fayaat mooy ñaari société yooyu nga xamante ne mm. ñoom ñoo ne ñoo def études yi kan moo leen di fayaat Sénégal wala ñoom dañuy perte seen xaalis loolu lu may laajte la mm. c'est Tidiane Dièye laa koy laaj beneen bi moom mooy la de guerre bu muy jéem a wax noonu parce que jamono yëpp campagne lañ nekk mu ne da koy indi Touba mm-hmm. moom sax dem na ba juin études yi nee na dem na ba juin 2025 mm. moom la de guerre boobu dama koy laaj dama koy fàttali li taxoon Macky Sall mm-hmm. defoon benn projet de désellement mooy dindi ndox xorom bi si géej gi mu mu jàppale waa de guerre fi Dakar. moy la de guerre dafa sonu moo tax. su ko beugé jël jëlé def def ay 180 km def ay 140 km hmm. def ay 240 km pour demat ba ci yenen dëkk yo xamantene ci ni mom bi rek mënu ko won gérer. Hmm. dama naan c'est impossible. Hmm. vraiment té nak xaalis bobu ñuy wax encore une fois nee naa budget bobu gatt gatt Ousmane Sonko la dégg moko huit cent milliards dina ci dugg te ñun dëkk bi fi ñu nekk nii dañ koo jaayatul dafa tëju fan la ñuy jëlee xaalis boobu te ki muy waxal mu ngi koy déglu xam na ne kii li muy wax nii mbébétam la mais dem Demba Ndiaye man damaa déggoon Amadou Ba indi ci benn façon boo xamante ne si nii moo gën a garaaw ba pare ba pare ci court terme la ci ndoxum Touba ñu ne ko fi kupp kon moom bu mu dem foofu jamono jii di fa wax lii kon dañuy xam ne législative yi moo tax muy dem di def lolu mhm. waye na xam mom Cheikh Tidiane Dièye mom man man man man Baba may wax ak mom mhm. na xam ne ki doon waxal moy mhm. ingénieur bi gëna mag Sénégal té yoonu mourid tamit il faut qu'on respecte ndax bo duggé ci université biñu défar di nga xam ne ñu duñ ay ngaaka boo duggee Masaalikul jinan bi di nga xam ne ay ngaaka nekkuñu fi kon ngir yalla encore une fois respecté len ñu bo len ñi wax ñu xam ne ay nit ngeen di waxal nag man ma ngi xaar nak Ousmane Sonko dem Touba wala dem Mbacké meeting boobu man mm. yooyu man maa ngi koy xaar quoi loolu li mu wax noonu mm. mënta ne bu ko defee benn at li mu wax bu ko defee benn at non du benn at di déglu rek li mu ah, wax bu laa wax bu paree benn at assèchement mooy am la de mooy ndox mi mooy jeex man maa wax loolu man Seydou Bamba li mu wax mm. waaw te loolu dina am de ndoxum Touba dina ñëw ak feneen ak feneen mais du lii ngeen di wax nii ñun def nañ suñu étude bu yàgg ngeen xam loolu. maanaam du xaaruñu leen bokk yoonu murit xaaruñu état pour développer. moom nañu def loolu seen bopp bu baax a baax lii mu def nii période campagne bi mu ko def nii. du sa respect. mais na na ko wóor nii rek ingénieur bi gën a mag Sénégal la toogaloon keroog di wax ak moom te ñun duñu ay ngaaka. te ñoo ngi koy déglu nag bu baax